ma ma dugg si mm-hmm. parce que euh, ancien député la à l'occurrence Moustapha Diakhaté mm-hmm. sénégalais dañoo exprimé wu cinquante quatre pour cent ak lii dikk tey ñu koy wax aux environs soixante et quelques pour cent mais Moustapha Diakhaté am na ay kàddu yoo xamante ni génnee na ko ci askan wi euh, jëm na bay sax jàpp ni eh, dëkk bi dañu dañu alku ñi ñi ñi ñii ñi ñi jël seeni kart jox ko koo xamante ni dëkk bi tey su fi deret tuuroo wala bokk mu doon wane ne da doon manipuler askan wi wane ko ci ci ci ci public bi kooku euh, votel ko mooy ñàkk ànd ak sa sago sago tey moom noonu la di euh, euh, décrypter li nga xamante ni moom moo di li am si législative yi wees naka nga ko jàngatee ah yow kon jàpp naa ne yow da ngay déglu Moustapha Diakhaté ko man du ma déglu Moustapha Diakhaté xelam làmbeer na bu yàgg da ngeen di déglu Moustapha ba toog plateau léegi di commenter ay Moustapha Diakhaté waxam non Moustapha Diakhaté waxam jarul dóor sa doom. un ancien parlementaire. non attendez attendez il faut non non nous connaissons sa posture nous connaissons ses analyses mais ñun dañu nekk ci yoon di dem Moustapha Diakhaté moom wax dëgg fa yàlla lu ko neex rek mën na mën na ko def mën na wax mais liñ koy ñaanal daal mooy yàlla may ko wér. Mm. te mu soppi doxalin wut si jaada. ay ay ay ay ay ay jàllabi yu weex tal di julli di ñaanal cette nouvelle génération qui va changer ce pays parce que eux on les a tout donné. ça ne vous a pas choqué le fait que. je l'écoute même pas moi j'écoute pas askan woowu manifesté wu. non non xam nga ñoom tout le temps rek euh, askan wi da leen di bàcc. gis nga les résultats en <laughs> réalité ce n'est pas réellement pour les candidats parce que candidats dañu wane se mais c'est surtout pour ces gens ne chaque jour askan wi li ngeen wax mooy loolu dem leen ngeen noppaloo ko parce que Moussa Diakhaté kenn waru ko déglu ci réew mi bon xanaa ñu mel ni yenn journaliste yenn koy may bës su demee bay jàpp ni tey organisation bi li waral opposition bi nërmeelu mooy li ñu teel a xam ni euh, ki nga xamee ne moom président Diomaye que il di dissoudre l'assemblée partisan am yëpp xam ko ñu organiser wu en fait vote bi mu jàpp ni dafa manque de sincérité moom moo waral tey euh, résultat bi demee nii du côté de l'opposition man wax naa la waxi Moustapha Diakhaté moom dañuy tàddal suñu bopp tàddal Sénégal yi ah moom moo manqué de sincérité moom parce que yaakaar naa quand le peuple s'exprime il faut respecter le choix du peuple comme on l'a fait ñoom biñ fi nekkee donc ay waxi Moustapha Diakhaté moom wax dëgg fa yàlla xale jardin d'enfance sax waruñu ko leen ko di leen ko wax mm-hmm. parce que duñ ci jëlee njariñ mm-hmm. nañu avancé ci ci ci ci marché bi ñu nekk jub jubal jubanti pour soppi suñu réew mm-hmm. à sagesse. Mm. mooy que boo waree wax nga wax bu sa wax nag jeexee wóor na ne yow war a toog nga dem toogi ñaanal àddina noonu la ku nekk ak sa sa période. Mm-hmm. moom yi muy wax yëpp ay naqa sa xandal lañ. Mm-hmm. voilà je crois que voilà daal bëgguma ak seen parce que mag la et ñun li ñu jàngal ñun en tant que. Mm-hmm. Euh, doomu Lebu aussi mooy que mag dañ koy wormaal. mais man je perds pas mon temps ci ñenn ñi. vraiment su ma leen gisee sax ci télé damay zappé wuti leneen. parce que ils peuvent absolument rien m'apporter j'ai pas de parler de Moustapha Diakhaté yàlla na ko yàlla may jàmm te na wuti si sijaada hmm. continuer julli di ñaanal ndaw ñi nga xam ne tey changement réew mi daf leen jaral seen bakkan parce que dañu bëgg ñun tëdd suñuy doom jaar suñu kaw pour seen lendemain mu gën a ñoŋ suñu yos yi xam nga euh, leneen tam dafa nekk lu taxaw ginnaaw victoire bu rëy bi nga xamante ni seen parti def na ko hmm. dafa